ginnaaw bu ñu ziyaare xalif général des mourides sëriñ Mountakha Mbacké Bachir njabootuk Chérif Abdourahmane Fall Tilala ci njiitalul sëriñ Abdoul Aziz Fall mi nga xam ne mooy xalifaam ànd naag njaboot gi ñëw ci xalif général des Baye Fall sëriñ Cheikh Jëmb Fall ñëwaat ziar ko waaye feddali kóllëre gi nga xam ne doxoon na ci diggante waajuram wa ak xalif général des Baye Fall waaye gën a feddaliwaat ak taalibeem ci kër maam Cheikh Ibrahima Fall. ñaan sunu borom mottali naal yëpp rek. ci barke Cheikh Ibra. barke Cheikh Mamadou Moustapha. ñoom ñii nag. di njabootuk Serigne Abdourahmane Fall Tilala. ci njiitul Serigne Aziz Fall mii. di ab xalifaam. ànd ak sëñ làmp ak sëñ Seexuna ak seen rakk ñëpp. ak sëñ làmp ak tey ji dañoo ñëwoon. ci kër Serigne Mountakha. nee mi doon seen wasiilo waajur. nee doon joxe seen bopp. nee na ndax boobu ba tey. bi mbir yi amee ba léegi. dara umb ci sëñ bi. ndax fuñ ci toll rek. ci toll rek. man mii. xam naa ko. xam na ko te teewoon naa ko. waaye maa na ko ànd ak ñoom. lépp jotal naa ko sëñ bi. tey it loolu seen waajur da doon sama mag di sama xarit ñu bokk bàyyi mm-hmm. te loolu ànd nañ fii ba tàyyi ci ak wet ci sëriñ bi mm-hmm. kon li may wax sëriñ bi xam na ko bu baax a baax xanaa ah, ah, dama xanaa dama ciy jaar rek waaye jëfam yu rëy yooyu mu daa jëf mbooloo mi ñoo ñoo taxoon mu man ko. nee na moo taxoon nag tey ñu ñëw. biñ jógee kër Serigne Touba. nee na jaar kër Cheikh Ibra. fas yéenee jaar kër Cheikh Ibra waaw ndax ñoom ñi nee ay Baye Fall la leen def. defu leen ay naar. defu leen ay leneen. ay leneen. ay Baye la leen def. liggéey bi ñu liggéeyal Cheikh liggéey bi mu seen jëmm yi la ko doon liggéey. ndax bari waa na ku jiite mbooloo. nee ba wane gannaaw. ba te doo bàyyi ñu mel nii. nee waaye ñii nag defe naa ne. nee bi ñëwee ba agsi ci bunt bi. bi waxuñu leen ni leen. su ngeen demee lii ngeen di def. ndax seen baay jàngal na leen ko. seenu sëriñ jàngal na leen ko. moo tax. nee loolu. loolu. ñi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi koy koy di sëñ bi. di te di ko xamal. nee na di ko leen sàkkul ñaan tamit. waaw ndax ñoom ñii kat. su ñëwee bàyyee ma seen kàddu def nañ lu seen baay daan def waaw ñu ngi ñëw nag sërif sërif Abdou Aziz mii mi ngi mi ngi ñëw ni bàyyam jébale woon boppam sëñ bi mi ngi koy jébalewaat boppam ak njaboot gépp ndax ñoom duñ doon lenn dul ay Baay waaw ay Baye Fall dong la doon ñoom ñi Cheikh Fall dong lañ gëm waaw liggéey bi Serif doon liggéey ñu ñu ngi koy ñu ngi koy sàkkal ci jëmmi Cheikh Fall ji liggéey boobu na àgg fu kawe njor te sunu boroom musal lañ seytaane musal leen ci ndog yi te lépp luy lore rek na leen ko sëñ bi fanqal te may leen kàttan gu ñu mën a jëfale sëñ bu baax a baax ñoo ngi ñaanal sëriñ bi nag saa boroom yàggal ko lool te wéral ko ci barkeb maam Cheikh Rafal dañ koy dénkaat suñu Abdou Aziz mii nga xamante ni mooy sulub sëriñ ñëpp kat dañ sëriñ bi ay ndaw la bàyyi waaye suñu Abdou moom naka jekk bi way juróom way dundi nii la meloon moog rakkam yi bu nu amee ndimbalu nag tey nu xëyee ca sëñ Touba ñëw gont ci maam Cheikh Rafal sunu xel dal na noo ngi bëgg rek tey ñaan tey sàkku tey dagaan te yalwaan sëñ bi dimbalil nu ko mu aaru te am kàttan ndax li mu yéene mooy naali baay yi mu eggali ko ba eggali naali boppam yi waaye lépp nag ci jataayub sëriñ bi kon ñoo ngi wàcc sunu kàddu ndax mu Moustapha mii nga xamante ni moo doon wax moom naka jekk sunub sëriñ la di sunub xarit ndax sëriñ bi da ko wóolu woon def ko rakkam doonoon xaritam bi mu waxee sax damaa jëfe ndigal rek ni kon samay kàddu mën na cee bañ a jib waaye nag jëfe ndigal rek ndax ndigal moom caabi la bu ëppee du ubbi bu yéesee du ubbi boo ko forcé mu damm caabi ja kon nanu ñaanal suñu sëriñ bi rek sama borom yàlla dëgëral ko moo ko rakkam yi yëpp ak taalibeem yëpp ndax kattan bu amee danañ jëfal sëñ bi ba mu yëg ni jëfal nañ ko jërëjëf. ginnaaw kàddu yi nga xam ne yëkkati nañ ko ci turu sëriñ Abdoul Aziz Fall mi nga xam ne mooy xalifa Chérif Abdourahmane Fall Tilala Serigne Omar ya di kenn ci jëwrinu kër sëriñ Cheikh Jëmb Fall yëkkati na fay kàddu ci turu sëriñ bi santaat leen bu baax a baax waaye gën a ñaaxaat ñi nga xam ne ñoo di njaboot gi. ndax sëñ Moustapha mi toog di doomi Serigne bi doon nit ku baax xam ne murit bu jigéen boobee na ci këram tey ji sëriñ bi moo ko dénk kon baayam la wëlbati ko doon gorom mu doon ku jàpp kër gi nag jàpp léppi sëriñ bi. doon nit koo xamee ne lu ko yoon wi jaral bari na kon bu doonee seeni bunt ci lu jiitu seeni jotaay ji lenn lu ci nekk mu jaar ko fa mu war a jaar bu ñëw fii bisu tey ji sëñ bi narut bokkuloon ci bis yi muy génn déedéet waaye nag li koy sabab bi mooy ka ngeen doxale seen diggante ak sëriñ bi moo fi dul dox lenn loo xam dana yéex mbaa mu tardé mbaa ñu koy gàntal bu doon keneen dañu joxe ngànt waaye pas-pasam ak xam fi moom xam na fi bàyyam toll kon am na ñooñ bu ànd ñoom ñëw ci sëriñ bi rek nun mën a defit dañ ko fekk ci bëggam sëñ Aziz ñoo ngi leen di siyaare bu baax ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax euh, damaa jàpp ni Chérif Abdourahmane Fall da doon wane ab yoon waaye ba muy ñëw ci sëriñ bi boppam taxut yow yaa taxoon sa diggante ak sëriñ bi nag kenn doxu ci ku dul sëñ Moustapha mii Baye Mbacke Fall nag dafa am lu mu waxoon nee na ku toog sa xalifa baay dàq mag ñi desee gone yi boo gestoo dootoo gis mag ñi te da nga ñàkk boo boo dàqee mag ñi desee gone yi boo gestoo dootoo gis mag ñi te da nga ñàkk gone yi magi taalibe ci lañ bokk yoon nag bañ ko dee wax ñay dox tax kon ku doxul bokku ci ab Baay Faal nag dafa am melo war te war a tax ñu naan Baay Faal Cheikh Ibra Fall nag nee na sëriñ du tuuti du rëy jëf mooy rëy jëf mooy tuuti sëñ ngañ sa wax laay fekk si waat xaj na kat ka sos yës yi ci yéen muy shérif dem na waaye mosu du fi jóg ndax jëfam ju baax ñoo ngi fi ndax sëñ Aziz mii li mu ñëw ci kër gi bariwul tey suñ ko ubbilee mu jaar ci sëñ Moussa mii jëfi shérif a taxoon loolu kon fi fii ak sa jëf ju baax ñoo ngi fi mosoo fee jóg waaye nag moom moo fi sës tey moo fi ne kon ñene ci ginnaawam dañ feddaliwaat seen laxasaay gën a góorgóorlu xam ni yoon wi li ñu fiy may amu fi ab Baay Faal dafa jaayante ne lépp mu luy bëgg-bëgg sëriñ bi ca lay fas yéene nekk ñu ne ko yow sa jëmm ji mu ni sama jëmm ji nekkul sëriñ bi moo nekk Baay na Sàll moo laaj Cheikh Ibra lan mooy Baay Faal mu ne ko Baay Faal kat ñett la sikar tur sàmm say ak liggéey joxe sëñ Cheikh Fall Baye Góor nee na yoon daal bañ koy wax ñay dox tax kon ku doxul bokku ca yoon wi nag yoonu dox la lay tax nga mucc nag lay tax li nga bëgg lépp nga am ko mooy dëgmal sëriñ bi rek sëriñ bi am nay programme fexeel ba benn programme bu mu la rëcc àdduna gépp bu ñu la doon maase xeexit duñ la mënal dara ndax mbir ku koy dundal moo lay dundal wasalaamaaleykum wa rahmatullah ginnaaw bi leen sëriñ Cheikh Jëmb Fall ñaanalee ñoom njabootu Chérif Abdourahmane Fall Tilala ànd nañ dem ci sëriñ bu Mbacke moom Cheikh Mohamad Fadal mi nga xam ne moo jiitee tubaa ca kanam sëriñ Abdoul Aziz Fall ñëw feddaliwaat kóllëre gi nga xam ne doxoon na ci diggante waajuram wa di Chérif Abdourahmane Fall Tilala ak ki nga xam ne moom moo di sëriñ Abibou Mbacke sëriñ Abibou it sant bu baax a baax ci teew gi. ginnaaw bi mu leen ñaanalee ci lañ ñëw ci sëriñ cheikh ummi Mbacke moom cheikh Mohamad Fadal Mbacke moom it mu nekk koo xam ne wëllëre woon ak shérif Abdourahmane Fall Tilala mu nekk lu yàgg lool loole nag njaboot gi ñëw feddaliwaat ko yeesalaat ko lu ne mel ki nga xam ne moom moo di sëriñ cheikh ummi fàttali na ko waaye gën leen a ñaaxaar ñu gën a doon benn topp seen ginnaaw mag mi nga xam ne tey jii mooy seen kilifa ñoom ñëpp ñaaxaar leen bu baax a baax waaye fas yéene sàmm kóllëre gi nga xam ne moo doxoon ci seen diggante ak Chérif Abdourahmane Fall Tilala gën a góorlu doon benn aw ci seen tànki waajur wa gën a sax dàkk di liggéeyal Serigne Touba.